صفي بكمال صفاته فإنه Tilleen TV leeru diine Tilleen TV leeru diine به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم tuddoon naa ko Serigne Moussa Leye di wéy juru ñoom Serigne Omar Leye moom it bokkoon na ci ñi nga xamante ni su mag su tak tak daan am daana préfinancé gàmmu ji ci wàllu nag yi alxaaji mbay ja sëriñ mortala mbóoj sëriñ ibrahima jóob sëriñ cendo jóob sëriñ charles gay sëriñ makumba jeng sëriñ mayib loo di wayjuru alxaaji mouhamadou loo sëriñ babacar sàll afe sëriñ alxaaji jóob bagdaad Serigne Ibra Fatim Sall ngan na gu mag Alxaaji Omar Fall Cissé Bakaya Ngumba Serigne Cheikh Sey di doomu Serigne Samba Yacine Sey Ngumba Géewul Alxaaji Omar Anta Jama Kër Omar Serigne Hassan Dieng Ate Dieng di wayjuru Abbas Dieng Serigne Ngañ Fatim Dieng Guyar Dieng Serigne Modou Xayta Diagne di bàyyi Diagne Jamil Serigne Mbaye Asta Diagne baqayee jël Louga sëriñ Moustapha Ndiaye kër Mbaalo sëriñ bi seeti na ko heure bu demee ngan na jaar ci moom ba muy dund mi ngi jaar ci taxawaay bépp mu amoon njabootam mi ngi koy am ba léegi sëriñ Maxtaar Lo ndaam kër giri sëriñ Njaga Mbay sëriñ ma jaan nga naar bi way jur yàlli jaan sëriñ Mor Jeng Badem Jeng sëriñ Modou Ndiaye Talla daara jaañ di wéy juru jaañ lawraat bi mu demee ba jëm mag ci la sooga yebal bàyyi daam jaañ mu taxawee taxawaayam quatorze daayira nekkoon ci gannaawam sëriñ Malamine Mbay ci la géey sëriñ Birahim Korka Ndaw ca Ndimbu Ndaw sëriñ Modou Fatim Silla jëlleerlu sëriñ Maxtaar Jeng Sàkkal sëriñ Mor Njaay kër sayeer sëriñ manjaay béy ndanku béy sëriñ madun jaay badel ñaan sëriñ maggat jaw rite jaw alxaaji amar jóob ngidide sëriñ abdoulaye fati siise ñeen gu ndaw sëriñ moustapha jóob kër ngunta mu nekkoon jàmbaar góor bu farlu woon bu xawoon la tuuti ak bénéface bu rafet ba fa tabaarakallaahu sëriñ Mor Diop kër góor alxaaji Njaga Mbuub kër Paate sëriñ Njaay Mbuub kër Maysa fa tabaarakallaahu ñii de seen njaboot ba léegi ñoo nekk di taxawu gàmmu kon nag ñoom de ñoo leen di rendre hommage waaye daañu bëgg ndax yëg yëg gi ñuy yëg xam gi ñu xam ne seen njaboot ñuy yëngu te ñañ doon yëngul seen xalifa mu ngi toog ak ñun su ko defee ci loolu lañuy jaaree sant mbooleem kilifa diine yi yi ci dëkk bi ak yi nekkul ci dëkk bi di jiital ci kilifa diine yi sunu wayjur di sa wayjur bu baax bi di sunu sëriñ gàmmu gi moo ci njëkk a def loxam ci wàllu ndawal jox ñu ñaari nag ànd ak ay ñaanam ak ay kàddoom kon sëriñ bi santal ñu ko gërëmal ñu ko fa tabarakallahu daf moo ñu ubbi njëkk a fii ci bayal bi mu jóge fee ci école canadien bi Modou Awa Balla Mbacké booba nekk du fi foofee la ñu jógee en 1982 nekk fi waaye ñetti ak jamiya bi organisé lañu fi alxaaji Abdoul Aziz Dabbar di wéy juram ñëw fii ci bayal bi organiser leen conférence leen waxtaanal leen bégal leen ñoom jamiya bi kon du hasard muy lay wéttali nekk sa wet fa tabarakallahu wax na astu si Malick ñëpp moo xam daayira istiqaam moo xam daayira sëddi fa tabarakallahu ñoom ñëpp di fédération bi ñoom ñëpp teew nañu teewal ànd ak yow gunge la ci bis famille sëriñ Abbas Sall ba démb ñun ak ñoom ñoo àndandoo xadratul jumaa bi famille sëriñ Hadi Diop ànd na ñoom ñoom démb ànd ak ñoom tey ba ci sëriñ Modou Mbène Diop moom ci boppam ñëwal na boppam ànd fa tabarakallahu teewaayam ak teewal famille alxaaji Mor day na yoobi fan sëriñ ma du ma dukke sekk borom yàlla nee na fami cox na nga xam ne fi la ñuy defee gàmm gi ñoom itam ñoom ñëpp ubbi nañu seeni bunti kër dalal gan yi fa tabarakallahu ba pare jël seen participation def ko ci gàmm gi kon ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm fami payeen fami looy yéen waa kër sëriñ fàllu mbàkke mbooleem dawaayir yi mbooleem dawaayir yi yi nga xamante ne ñoo aju ci union bi yëpp fukki ne ci diir bu gàtt def nañu tournée fu ñu àgg seeni engagement ku fekkee jamono bi ñuy bâche nga xam ni la ñu waxoon ak la ñu cotisé lépp def nañu ko lépp lu ñu engagé woon def nañu ko mbooleem dawaayir yi nga xamante ne ñoo tënku ci sa ndigal tënku ci sa xadaram bàyyi di Cheikh Seydou Mouhamed Moustapha Sy Jamil damay bañ a lim am naa waxal ci mais foo tuur ñun la gis ngeen leen ci biir tànt bi yàlla na yàlla fayal leen boppam ñoo ngi leen sant di leen gërëm maa ngi jéggalu ci guddeel bi ni nga xamante ni noonu la bëggee woon ma santee ko nit ñi amaana sama doye di tax na matewul maa ngi ciy jéggalu lu ci rafet jekk ci kàttanu yàlla laaj barke sëriñ bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa di ko tëjee sëriñ bi sa wóllëree maam Malick Sall xam ngeen maam Malick Sall dafa yéeme woon sëñ Moustapha Sy Jamil daana wax ne Malick Aïssa Thiam ak Demba Yaxara ñoo daan téye ñaari nga laa bu euh, euh, fasu bi maam Malick Sall daan wax su ko defee buy dem jàkkay xewar pour jiite ji ndax booba ñépp ci gannaawam la ñuy julli benn pénc moo fi amoon muy jàkkay xewar maam Malick Sall di ko jiite tubaab yi buñ ñëwee bëgg ko photo bu ñu photo Demba Yaxara feeñ Malick Aïcha feeñ fas yu feeñ waaye jëmmi maam Malick Sall du ko gis sëñ Moustapha ne loolu daf ko bis bi kon moom it fa tabarakallahu njaal bennam di sëriñ Moustapha diggam tuddee kon ñoo ngi lay ñoo ngi ñoo ngi lay eh, eh, jottali loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci jataay bu tedd bu jekk bii ak kilifa yu mat li ñu doon yilif jataay bi tooge ko di ci jiital moos wayjur wu màgg wi sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ayyadahu llahu wa nasara di ci teg sunu sëriñ cheikh sayidi muhammadin il mansour ibn sayidi muhammadin il mustapha radiallahu anhu di jaare ci moom nag di nuyu kilifa yi ci biir tànt bi yépp ak yi nga xam ne yéene nañ teew fi waaye yàlla dogalu si Seyid Mouhamadul Mansour lii toog ngay gis liggéeyu sa wuy jur wala Cheikh Seyidi Mouhamadinil Moustapha waaye seen toogaay yii ñu toog nag si yow la mag mu baax dafa wax ne lu baax foo ko fekk ku baax moo ko fa indi waaye ku baax ka bu fa bàyyee lu baax la gën fa baax daf fa bàyyi ku baax Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha yow la nu bàyyeel nuy ndono ci yow lu wér sa way jur wu baax wa Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji dafa daan wax ne njabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha suñu dajee doo dégg déglu leen loolu moo fi nekk si ba tey waaye nag bi ko fi sa wayjur wa bàyyee itam yaa fi taxaw doxal ko ba mu mel nii si ñuy sant nag ñi fi daje ñépp bàyyiwunu kenn moo xam góor la moo xam jigéen di leen sant nag ci làmmiñu njàmbur gépp làmmiñu njàmbur gépp ndax lii sagub njàmbur la su neexoon boroom mu tuxale ko fi yóbbu ko feneen waaye kon bu nu ko fi bàyyee leen waa njàmbur nag war na nu ko téye bu baax te liggéey ko bu baax te taxaw ci taxawin woo xam ne moom mi nga xam ne moo ko fi bàyyi noona la ko bëggee te moom bëgg-bëggam du lenn lu dul la yonent bi bëggoon ci njabootam loolu la bëgg ci njabootam muy moom Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bii njaboot gi noo di yëkkateendoo di tegandoo loolu la Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bëgg buggul leneen te sunu ko defee itam nun ñi mu koy defloo nun lay sunu bénéfice waaye du bénéfice am moom ndax moom bénéfice wu na ba noppi sa maam di Seydil Hadji Malick sa maam di Malick Sall doy na sëkk bénéfice kon loo doxalati nit moom ma ngi koy doxal moo tax waaye yow ma ko koy doxal sa bopp taxul ci ñi ngi laa nuyu ñi ngi laa ziyaara ñi ngi laa jéglu njuumte lu am rekk nun la waaye bu nu juumee rek si noo ngi lay jéglu te yeesluwaat di nuyu ñépp nag bàyyi wunu kenn di ziyaara ñépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Babacar ci Abdou di ci teg suñu sëriñ sëriñ Mansour Sy Djamil di jaar ci moom di di nuyu mbooleem kuy kilifa ak ku teew ci tànt xamna bëgg no guddal ndax kaddu gi dañ ko bëggono jox sax serigne daoud mu waxal nako ndax faralul di taxaw ci mbolo mu melni di wax bu ne menen mbolo nak man lañ fa wax waye serigne Mansour si jamil dafa def ren lu re re re re fami bi réunion waxtaan def délégation ni ma comme yow yaay fréquenté daara ji demal nga taxaw loo wax baax na sëriñ Mansour Sy Djamil marqué point boo xam ne point bu rëy a rëy ndax ñun askan yu nu bokk daf di askan woo xamante ni bi ñeeño mu ngi ci diggante tëgg ak géwël duma ko détaillé ndax dafay gudd waaye bu fekkee maam Malick sàll mooy maamu Serigne Mansour Sy Djamil ñaari Malick seq ñu ko koy wooyee suñu maam Maali Aysa gëmoon maam Malick Sall nekk première taalibe boo xam ne ak ñeeño la gëm maam Malick Sall di xëy ci moom di gont ci moom bu daan dem moo daan téye ngalam gi maam Maali Aysa jur macaam caam macaam caam gëmul bëggul wóoluwul ku dul Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si Djamil dëkk fii bu gàmm gi daan ñëw àll bi daan am kenn xamul nu mu daan toll intellectuel la woon daan liggéeyee contrôle économique liggéey ba retraité ñëw ibbi mbaaram di liggéey ay dàll yor njabootam yar leen ba tey ñoom ñëpp kenn ku ne yor nga sa kër sëriñ Mansour Sy Djamil def parrain bi Mathiam Thiam moomu nga xam ne bëggul ku dul Seydi Djamil ba jël caatam tudd ko Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha ah sëriñ Mansour xamoon naa ni nag sëriñ nga gëmoon naa ni am nga wilaaya gëmoon naa ni ci gaa yu mag ya nga bokk waaye nag xam naa ni nag nii nii gëm naa ni nag ouverture nag le marabout intellectuel bu ñu koy wax marabout marabout dëgg dëgg dëgg mooy yow ndax mbir yi sëriñ Moustapha bu ne mbir yi nekkatul ci course yi mu ngi ci activité yi am famille bu nekk fii di ay ñeeño topp activité yi di daw rek yow nga dem ba découvrir leen boole leen ci mbir mii nga xam ne ah si sagu nan de aka ñoo sagu benn nag lan nan rey waaye danoo yokk nag yi yokk ginaar yi woo ñëpp ñun dendal sax dañ leen a teral ren ren li nga def dafa rëy fii ba déwén lañ koy sagoo ndax ñun ay ñeeño la ñun waaye defal rek dang koy yëkëti te itam limu bëgg wax lay si mënuma ko wax dama koy teunk rek waye dal jappal ni baba mi taw ànd ko ak ay rakam yu goor ak yu jigen ñom ñepp ñi ngi lay gërëm di la sant jaarale ko ci union ñi yaqku ñu ci dara ban ko waxe dañ ko rafetlu xam ni suñu baye sonna na ci kër gi gëmul ku du Serigne mustapha ñu accepté loolu d'accord ci loolu sëñ Mansour mën na ko bëgg te yéen ngeen ko bëgg waaye ni ngeen ko bëggee gën ngeen noo mobiliser waat ñu mën a duggaat ci biir kër gi mën a fagaruwaat xam nañ kan mooy sëriñ Mansour moom lañ bëgg moom lañ wóolu moom lañ bëgg suñu xol waaye daanu gën a góorgóorlu ndax li ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu si mbooloo boppam yi lu rëy la si maa ngi koy ñaan rek bala muy dem su ma daaneelee rek na yëkkati bindal na bind bu nga xam ni bii at mu nekk mu ngay bind te njëriñ rek lañ si alhamdulillahi alladi bi ni'amatihi wa jalaalihi tatimmu saalihaat وبفضله تتحقق مقاصد الغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا mbooloo في تاو

di leen nuyu di leen ziyaara di ziyaara di nuyu képp koo xam ne kii teew nga si natt bi dafa am bi sëñ Moustapha di wax parti bi ëpp si lim doon wax dafa dëggal ni ñi fiy teew yépp ay doomu mag ñi la ay doomu mag ñi lañu sambaay dafay wax benn aaya boo xam ne bi yàlla dafa ni su dul woon mag ñi dàcc taxaw bi ñuy taxaw xeex gàcce moo tax gàcce dellu gannaaw sa mbaay ni yàlla fonk leen ba tudde leen ulul baqiya yanhawna anil fasaadi fil ardi illa qalila لولا كان من القلوب من قبلكم أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه أولو العقل أولو العلم أولو الذكاء أولو التمييز وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا mag ñooñu li ko sëñ Moustapha daan waxee ci ñoom la lii fi xew fii yëpp du ñun ñoom la waaye ma indi ci ñooñu xam ni dawlu nañu ñu dawlu ñu bëggoon profito ci occasion bi pour ñaanal soxna Fatou Cissé ndax gàmmu Louga gàmmoo tax lu nekk di daan taxaw su gàmmu ñëwee gàmmu Louga dootul amati am beneen jot bu lul gàmmu bi ma bëggoon ñu profito ci jataay bii nga xam ni fonkoon na ko lu nekk la ko daan jaral ñu ñaanal ka ñaan ji nga xamni ni moko indi si alquran ni sama gaay ñi suñu ñëwé taxaw si sama kanam sama gaay ñi la wax dé dam leen di dawlal seen film si àdduna Far Cissé bi mu démé ci kanamu yalla yalla dawlal naka filmam filmam si lu wa suñu gisee ni yiw rek la ñu nekkoon si aduna dañuy bot seen loxo di doxantu si àjjana yi gën kawe aaya la yàlla ko wax wujuhun yawma idin naima سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة suñ dee doxantu boot seen loxo si àjjana yi gën kawe yàlla nee na dañuy changer fauteuil yi changer lal yi changer darab yi changer tapis yi ngir jàmm yàlla boobu nga xam ne yàlla kontaan na si moom ba dawalal ko fi mu gis ne ay yiw rek a si ne loolu yàlla na yàlla defal soxna yàlla dafa ni awalam yaraw anna naati arba nanqusuha min atwabiha wallahu yaxkumu laa muaqiba li hukmihi nee na man la neex yàlla ma bind ay doomu aadama bind àdduna bind doomu aadama ñu nekk si kaw suuf di daw waaye man lay neex waxtu wu ma neexee ma jël leen yóbbu te du mu ko préparé te nu moo gën gaawe laa koy def te kenn laa muaqiba li hukmihi kenn du commenté li muy def fasciste dugg na yeesal njàppam toog si poto yàlla yóbbu ko loolu la de yàlla yóbbu ko dugg na yeesal njàppam toog si poto feebaru deful dara yàlla yóbbul ko boppam wala yàlla nee na nag laa muaqiba li hukmi kenn du ko commenté wa oh, sari'ul xisaab sari'ul xisaab nee ni mu gën gaawee la koy defee te di si tàggu kenn waaye ñi ngi koy ñaanal bi soxna Faty ak ñi nga xam ñoo dawlu diggante ñaari gàmm sa maam dafa wax ni ala dunya ala sa maam nee na yeneen ñamu fekk si àjjana dañu peinturaat mur yi changer fauteuil changer dara bi que xam na ni kii ñëw mooy gën ngi mi neef ne noonu lan ko gane noonu lan ko gàttaloo noonu lan ko telale yal na ko yàlla defal soxna Fatou Cissé soxna Fatou yàlla mën na ko yàlla na ko def ma bëggoon rek ci sama dugg waxtaan laa bëggoon jox sama rak sama sëriñ sama xarit sañ Habib mais yàgg ànd ak bàyyam ñuy dem fu sore sore waaye waxtu bu ma ànd ak sañ Mansour borom daara yi ak ay doomam cër yëpp man la day wax barki démb la dem si maqaama maam Ibrahima si makkatal mukarrama daal ma defal benn nu koy waxee benn audio yónnee ma ko benn vidéo yónnee ma ko ni ma sëñ Mansour maa ngi fii waaye su ma nekkee fii daf may fàttali sam papa ak yow bi nu nekkee Màkka fii ni ma sëñ Mansour sam papa wéetal na la dafa am nag beneen gàmmu bu mu war teewee ma jox ko rek sa nim waa ci waalo ma jox ko rek mu sànni si ñaari kàddu mën na ko sa kàddu mooy sama kàddu sëriñ sunu waajur sunu lépp sëriñ Babacar Abdou nit du wax li ci jóg dañ leen fee teg samay kilifa leen fi teg du ma ñëw di ci sotti dara gars fay leen ma jéggalu di ziyaara sunu wayjur yi toog di sëriñ Babacar Abdoul Aziz di nuyu sunu mag sunu soppe sunu xarit mbokk yi sunu Babacar Abdou nee na nee na rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhim fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa maa baddalu tabdiila te nee na ñii toog ay kilifa moo leen fi teg ne kon nag ne moom dafay wéttali rek waaye nee na ñëwul pour yëkkati fi benn kàddu رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما بدلوا تخلية يجزي الله الصادقين بصدقهم yàlla incha allah boole te yàlla musal ñu teewu yoo xam yal nañ ci yàlla musal bokk yi dañu doon yëkkati kàddu rek kàddu ndigal waaye fii du suñu place pour ñu wax fi ndax ñiy toog ñooy suñu Seydil Hadj Malick te nit du wet di boppam dañuy ñëwaat rek di wéttali si sunu mag suñu xarit sunu soppe parce que kër Seydil Hadj Malick ci niveau boobu la toll ci jamono bii ci jamono yëpp waaye ci jamono bii la dañu bëgg képp koo xam ni ganaaru Seydil Hadji malik nga nga yëkkati dara njabootu Seydil Hadji Malick yëpp teew ba ñu xam ni Seydil Hadji malik rek la ñu kennal du kenn ñëwit di ndokkeel sunu mag ju baax ji lii mu wax nii barki ci démb wax na dëgg dama dem ba mag والله العظيم دمت اي اماكن اي برب يو خامني كرب بما فا ديمي سما خيل لمو جيكا داج موي 2000 سخنا فاتسي دم مك سيرن موسو ديكو دمل يوب سي جامو يو خامني سي والله العظيم خلاط ني وني من ما ييك سي افيون لا فيبر دا بوبو سيرن بي نيك نا سي سي دو غيسنتي موم دو سيرن waaye sëriñ Mansour mii moo ni sëriñ Mansour bàyyil ni ko li nga bëgg dafay am bàyyil sama bàjjeen mu ñëw mu aj dama ko kone bi ma ko déggee ma ko sëñ bi loolu mooy bu yeboo nga wutal sa yaay càngaay mu ni ma sa yoon nekku ci ñu dem ba màkk mu tatafu ndeyam bàjjenam téye ko ajal ko yamu ca fóon fexe ba mu fóon xajaratul aswad ba pare wëlbatiku ni ko wàccal nga dox ak say mu def loolu bàyyi Cheikh Seydi Mouhamed Mansour dem mag ni ko alaaji dégg naa ni faat si defal nga ko ba fóonal ko ajaratu la sama yoon nekkul ci nan ngay def ba ma fóon ajaratu la loolu sama yoon nekkul fexeel ba ma fóon keroog alaaji Mansour aj na aj boo xam ne bu fekkoon ni moo doon première ajam dinaa xoolaat aj ndax màtte ne ca Kaaba la màtt na konkalum Nigéria boo xam ni dafa ñëw rek depp ci kaaba gi lank ni du jog te sama bàyyi ba force mu fóon kaaba gi te bu fa waa ji jógul du fóon alaaji defi pexe defi pexe bax ndekete comme yàgg naa dem màkk mbagg ma la tiim rek matt ko rek waa ji fettak wëlbati ko yem ci man ak pour peñam ma ko nii muy nit ku baax di mag mu baax di tabaarakallahu bëgg ay waajuram ku bëgg njaboot si xaj Malick alaaji jërëjëf yàlla na yàlla fay alaaji Mansour suñu jërëjëf lu dëgg la ci ñun parce que ñun kenn rek mooy suñu sëriñ mooy Cheikh Sëriñ Mouhamadou Mansour te wala fi dañuy wax ni ku war ñëw ba wàcc ko loo war a tumu tuuti waaye uuf nga ñu yëkkati nga ñu fonk nga ñu bëgg nga ñu gis nga bésu tey bii maa ngi lay waatal ci alquran ni sànq laa ko billaahi wallaahi tallaahi ci maa ngi def ci man ak Cheikh bi ñu teewal xalifa bi ci sunu sëriñ yu baax yooyu di Thierno Madani la ma Cheikh mi wax ni maa ngi dem Louga man ko lu fa xew ma gàmmu la fekk maa ngi dem ni gàmmu ndimbal ma ni man Habib di dem ci gàmmu romb Seydi Hadj Malick jóge ci Alhaaj Malick loolu du ndam ci man looloo taxoon ma ni bu ma dee taxaw ci tànk donte ne seconde dinaa fi barkeel waale ci sunu waajur yi nga xam ni nit ko baax ku sell ku sedd nii mu ko waxee nii nii dama leen di wéttali loolu rek ñuy wéttali sëñ bi nag ñi jëm ci programme yu metti xew-xew yu metti muy élection présidentielle barab bii nag luñ fi mënta ñaan amul ñuy ñaan seen barke ngeen ñaan yàlla def dal ci réew def jàmm yàlla soosale xol yi ba jàmm am ci mm, yaakaaru na barab bi yaakaaru na yàlla na ñi ngi lay ñaan itam sunu waajur yi ñu amul ñu dul ñoom muy sëñ Babacar Abdou mii ak ñaari magam yëpp fi toogal di sëñ Maodo ak xalifa bi yàlla na yàlla yokk seen wér dale ko ci moom mii ak yow mii guddal seen fan ba naal wëre nga xam ni xalifa bi mi ngi ko naalal yàlla muy jumaa ji ñu ànd ko jullit yëpp ubbi ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbaax bu mu koo man rek man delloo naa la ko su ma yaatoo ni ma yaatoo si seen ëttu mbaay yàlla ak seen baax tax waaw kon nag yal na yàlla yàggal ànd bi te yàlla bu si seytaane am yoon bi jaay nabi Musaa sallallahu alayhi wa sallam ma bëggoon rek m'occuper de la partie officielle Nous, madame la gouverneure monsieur le gouverneur adjoint madame la préfète et monsieur le président du conseil départemental nous avons pendant 10 ans ensemble

mais surtout le président de la république fonk bi ñu fonk bés bi ak seen taxawaay si bés bi man jege naa leen lool bi nga xamee ni gis naa si ñoom du ma neexul fii laa ñëw wax ko waaw ah, bi yëpp di dégg ba ñu nekkoon japon sax dégg na ko waaye tey bi nga xamee ni ngi taxaw taxawaay bu rafet

Je suis niñ jangé dem ñu ci waxtan di waxtan di intelligence artificielle az est-ce que xam intelligence artificielle ñu nekk fa ñetti fan ñi ëpp xam-xamu si Afrique ñoo président xam naa dafa feeñ sama kanam mu ni ma kay ngay ñibbi man que maa ngi ñibbi ëllëg à 10 heures 6 heures war na fekk à l' mun ma bàyyil tukki boobu an dem ma dugal la si sama avion mu dugal ma si avion ngir mbaaxam ni ma amul benn attente 40 minutes la da ñëw dugal sa bagage muy nit ku nga xam ni kii yagna dima di ma defal du won dara mo don président de euh, c'était le directeur de de Petrosen signé un accord avec ma banque précédente la banque de développement de 100 milliards mu woo ni ma Washington mu ma so démé daa un jeune ministre des finances amour expérience so démé na ka encadré pour signer signer accord foofu laa ko jëkki gisee foofu laa jëkk waxtaan ak moom après fekk naa ko Singapour fekk naa ko Lima au fekk naa ko Los Angeles fekk naa ko Jakarta Jakarta muy nit ku nga xam ne kii nit ku baax la kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm si lii nga xam ni taxawee nañ ko si gàmmu gi ñu ñaan yàlla lépp lu nga xam mu yàggal teraanga lépp lu nu mën ren yal nu mën teewoon lu ko ëpp bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Seydi Mouhamadou nag dafa am fu ma jaarale gis nga réyon boobu moo wax ni fekk na ma fa à Nouakchott damay toog ba si yàgg ma jaaxle nan laa mënee bokk si réunion bi te bu ñu tànn ñi war nekk si réunion bi pourquoi ñu tànn ma si lu nga xam ne lii sama diggante sëñ Mansour la muy daw ba tey sama dafa génn àdduna sëñ Mansour woo ma ma dem seeti di Tiwaawan am ma am na lu nan daan defal sama abdu sama abdu nekkatu fi yama kay defal ma ne ko lan la mu ma réception officielle yaa may jël si yóbbu delloos ma ne ka lolou man na ka def muy man nañu premier buntu ma ne ko loolu mën naa def bi premier buntu ñëwee ma dem di gën fekk fa sëñ abdu ñu jàpp si loxoom yóbbu ko mu def premier buntu bi nu dellu see ma waat ka si chambre à coucher ni ko góor gi ñaanal ma ma dem mu ni ma ëllëg ba ëllëg ma ni ko góor gi ëllëg amul mu ni ma lu tax ëllëg amul ma ni ko ëllëg à partir de demain waalo waalo yi nga xam ni ñooy gàmmu si dañu ñëw déposer seen bagage ak Tivaouane continuer dem continuer passe ziar chercher Mouhamed Moussa mun ma batale ko man ne ko tubaab bi de dañu wax ni l'essentiel waaw ne se délecte kon nag ëllëg duma mën ñëw góor yi mun ma ëllëg buñ ma fontoon na nga ñëw sëñ Abdou nga fa mën ko baax wax si mu ni ko waaye bàyyi ko mu taay bi baaxoon ko bàyyi ko sëñ bi mu ni ko noonu waxee ko wax mu ma kon nag dama toog doo sa taay bi baax bi ma demee bay génn sañaatu moom ni ma kaay kaay kaay doo demee ma ne ko lan la mu ne ma màgg sa papa ka invité conducteur buri ka daa dem na Mansour moom voyage na man ko bur yi damay dem organisé maa nga woon banque islamique développement réunion boobu sax waruma fa woon dem

la conférence africaine pour le renforcement de la paix nous signale les lignes naay ma jël ñu jël ma ma fay liggéey loolu yëpp que Seigneur, madame. si

en tout cas li ma bëgg wax monsieur le gouverneur madame la préfète parce que man je féminise les fonctions ah loolu madame la première ministre na nga wax le président que ni kontaanoon si moom kontaan nañu si yoni bi mu leen di yónni ñoo fekkee jataay bi di ñaan yàlla fi yàgg ñëw duñ fi yagg fekk té lepp lu nga xamni li jattaay bi laaj nako ya naka yalla def té li mo bëggoon wax ka di préparation bi ma sëñ Moustapha préparé ba anglais bi ma jang sax sëñ Moustapha mo ni ma demal jang anglais jot na lépp lu mooy def bala may war sama baax mun ma defal yi li ñu koy gën sante li ma bàyyi quarante ans à l'extérieur quarante ans benn bés amul benn pression bu mu mës def si man damay taaw munoon na wax ne wax ka mu ni ma lu tax nga bëgg dellu si Sénégal ma ne ko yaa ngi dem si mu ni ma bàyyi maag waaye yow luy passé ak lu dul passé ma ne ko luy passé mu ni ma li ngay wuti bitim réew sa tànk woyof rek moo tax nga koy wuti bitim réew mais ay jamono ba si kanam dootuma jigéen ñi que man ka lu dul passé mënuma sama nay maam sëñ Moussa loolu laa ko gën sante musul def pression si man nafsi nous sommes en sang du pays là. Il y aura les élections présidentielles. Le coup n'est quoi quand le gouvernement de Moubaye a des problèmes civils. Les situations comme le à séat le directoire national des Brésiliens, depuis quatre mois, a décidé de voter pour Amadouba. Des discussions beaucoup de beaucoup de beaucoup qui ont un point de vue. Décision boobu directoire bi moo ko il faut que nous ayons des images. waaye ñun li ñu gëm situation bi ak ni mu jaxasoo ak xam bi ma xam Macky Sall xam bi ma xam Amadou Ba ñun gis suñu keneen bu nga xam ne ci situation bi dans moins de deux mois ko gën. bi yàlla jëm kanam ànd am solo ànd bu àndul ak déggoo dara du ci sotti waaye ànd bu ànd ak déggoo rek suñu borom subhanahu wa taala mën nañoo nu ko yu ci lu bare bare yàlla ko yàlla defal nag ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk ñu ñëpp rek jàng fatiha salaatal fatihi ayatal kursi suratal ixlaasi falaqi naas te ñu ko salaatal fatihi wala salaatu bu ci waay yor ñu yéene nag yàlla ko yàlla nangu defal ñu ko hadiyee ci yeneen ci bi yàlla defal te ñuy Serigne Mansour di yóbbu yàlla ko yàlla teg ci loxoom te mu njiit laayam nag ci barke rasulillah bismillah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

ni waaw ñu bàyyi ko xel parce que participation la pour conférence su koor gi daayira bu nekk da nga waroon a participer vingt cinq mille ñu dimbalee di wax ni le trois boobu aussi mooy nekk conférence euh, bi am fële ca Mbour di samedi le 3 février incha allah su ko defee Ndiaye incha allah nga dugal bay xalifa rek ba dugg ci gàmmu gi incha allah taala لنا المختار في مفتاح الأنوار مفتاح التجليات مفتاح الحقائق مفتاح الكنوز مفتاح الرحمة عين الرحمة أبي المحاسن أبي الكرامات أبي الولايات أبي القرآن أبي السنة أبي العباس سيدي ومولاي أحمد ابن محمد التجاني سقانا الله من بحره بأعظم الأواني يا همة الشيخ أحضري لنا بهذا المحضر فلتعطه بنظرة بها عنان وتري أتكلم معكم عن مدد مولانا أحمد التجاني asalaamualeykum wa rahmatullahi taala maa ngi nuyu ñeenti deel deelu ku fi maa ngi lay nuyu ku fi maa ngi lay nuyu deelu kuy dégg sama kàddu maa ngi lay nuyu deelu kuy si maa ngi lay nuyu boobu nag gannaaw ba ma ko ñeppalee ñepp ba ñëpp ñëppoo ko dinaa ko kennal kenn ci biir ñëpp kenn kooku mën a rek ket kenn kooku mën a rek nal ci biir ñëpp kenn kooku mën a rek kenn nal ci biir ñëpp képp kenn ci ñun da ngay yëg sa kenn ci biir kennam googu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaare

mooy ñaanu Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha mooy ñaanu Alaaji Umar bu Ndar mooy ñaanu Alaaji Abdou Aziz Dabba bi ne woon hatta tura xalifatan lil jaddi tafaddulan minhu bidunil kaddi Alaaji Malick nee na Alaaji Abdou nee na da ngay toog ba mu yàgg rek ñun la yaa wuutu Serigne Babacar te ba mu koy wax waxuma la dara sax mais sa papa ngi dund mu ni xatta tura ba giseef la xalifatan ngay kuutaay lil jaddi ñeel Serigne Babacar tafaddulan ngëneel minhu bu tukkee ci yàlla bi du nil kaddi bu àndut ak coon xatta tura xalifatan lil jaddi تفضلا برفق دون كتي واو كما بسورة جميل دفرمني حتى ترى خليفة لجدي تفضلا برفق دون كتي am na loo xam ni bu ko bëgg a dégg da ngay dama temps bi dafa ma may 10 minutes bëriwul kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ma dugalal ci téere maamam bi téere boobu nga xam ne su ma neexee ma maas ci suuf ne xiraasu dahab seggitu wurus wu seen su ma neexee ma damma boole taa tudde ko xulaasatu dahab mooy résumé bu nu wurus bu mel ne wurus su ma neexee ma fataa ne xalaatu zahab soo bëggee mucc am wurus bu mucc rek jàngal téere boobu téere bi mbooleem xam-xam yi sama dëxëñ na ko ci biir xam-xamu askan bangal sa baaraam alaaji Malik def na ko ci biir xilaaf ne yaa xaalisal baxri lil aslaafi indiya aslaafu biha durratun ala min aljalab xam-xamu naxwu mi ngi ci biir xaalat فكم دية كنتم تدون بها قالوا لها أسرد آبال من النعم خمقم السدل على جمالي دفنك تبير خلاف نإسنان للبيت ثم إسنان لي ولكم إسنان فناتي أكبر سنة خمخم نزر على جمالي دفنك تبير خلاف وكان نازل نزر إذ همت yujtamau ala adiyatihi min shiddatil idami xam-xamu gént Alaaji Malik def na ko ci biir xilaaf zahab min baadi qaayi walaamin suma sittatu ashurin raa kan fi laa bi sufi lam yahimi xam-xamu jukko Alaaji Malik def na ko ci biir xilaaf zahab ne yubnun wa xubbun ومعدن حياة صبر زهد زكا زكا قرآن بالسلام خم خم إدور لك نخ موضة دفنك تبير خلاف نحمو إلى حفر آبار وما اختصروا لأن رأى ما رأى حمل كلبه خم خم اللغة على جمالي دفنك تبير خلاف تلحلها أرزمت أصواه واضحة جيرانها إنها في العقل كسر تلحلحت دقنا تلجلل دقنا تجلجل دقنا تلحلح تحلحل دقنا خم خم ميراث التصريف موضوع دخلنا في بير خلاف ننفي التوارث والتقديم قد اعتيا حكمين موضوع ن وا ما في نكون مداريو di yow ii su ma bëggee lamak ju teew dama indi laamu lamak mu ni li yow e su ma bëggee lamak ju teew ma asafaat laamu lamak yaayu mu mu des e ab yaata tax tëni kon mbooleem xam-xam yi Alaaji Maalik rëkkës na ko ci biir léegi tey ma war a gàmmoo alfaslu assaamin buntu ñaar fukkeel ak juróom-ñett te tey doo xoolee ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weer wi la Maodo ne wal mujizaatu loo taadaaduha abasun abasun

Thank you. loolu mooy mojisa bu mu def gannaaw nubuwa su fekkente ne mojisa bu mu def avant nubuwa loolu kenn du ko tuddee mojisa irhaasaat lañ koy tudde mais attention attention yenn saa yu jël place irhaasaat tuddee ko mojisa lahu qabla alwilaadaati qabla alwilaadati mujizaatu taraaha ummahu duuna zununi foofu mujiza irhaasaat loo aji sax la ñeel yonent bi mojisaatin xar baax yoo xam ni mojisa lañ ko tuddee mais ci wàllu maana irhasat loolu kañ xablal wilaadati la jëkk muy judd taraaha daana ko woon ummahu yaayam amina doona zumuri moo tax mu naan la naqiyun fi lwilaadati ujaabun yuayyi kulla si aqlin بني ومقبولي في ولادتي عجاب يعي كل ذي أقل بنيني إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي توبة وتردد ما نحن نحن نحن نحن الملك الريون الروح مرر ولادتهم جزاكهم في تراءهم دون صنوم يا إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي دوما خبرا في ولادته وجاب هنا في prazer. yoo xam ni yu ay yi dana lottal ku lezi aqlin képp ku am xel banii ni bu ñëw ma demaat wal mujisaat du feeñee ci wëliyu karaama lan koy wax ab wëliyu du defee muji kéemaan karaama la mais moom du ànd ak tahaddi muy def du feeñee ci ab jullit bu baax ku dul wali maawun ndimbal lañ koy wax du feeñee ci naafeq wala ku dul jullit istidraaj muy jay lañ koy wax lañ koy wax kéemaan yooyu nag yonent bi da ko amoon moo tax alaaji Malik ne la wal mu'jizaatu mbooleen kéemaan yonent bi taadaaduha jéem koo wàññi abasun fola lay ak abas du lay mooy fo moo xam ne am na objectivité abas nag mooy fo moo xam ne amul objectivité comme xale bu nekk ci wetu tefes gi di tabax ay néegu foogukaay yooyu moo tax yàlla ba mu nuy wax dafa ne afa afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasan وجهه لئيما موطنه معشار الاعشار فكيلو فكيلو فكيلو فكيلو كيمانو يونت بي لم يدرك ديسو فكا دب ولم يسمي ديسو كو ميرا مودا wax bu garaw ne jimul uluf jimul uluf mom dafa garaw ndax arab suy wàññi te amul fukk loolu la ñuy wax ci nax mu jam u xilla su ëppee fukk moom la ñuy wax jam u kasar te moo gisee yonent bi ëpp nañ fukk Maodo ne jéemul uluf lu tax maanaam alfu ak alaaf bokkul ci alquran alquran suy wàññi te matul fukk alaaf lay wax moo tax mu naan yumiddukum rabbukum bi salasati alaafin min al malaykati bi khamsati alaafin ndax jëm u qilla la moom tax ibn malik nela af ilatu af ulu summa fialu summatu af aali jumu xilla moom la ibnu malik wax waye nak du fekkente ne ëpp na fukk alxuraan du ko wax ala uluf la koy jam alam tara ila alladina xaraju min diyarihim wahum uluf parce que dëkk la réew la waaw lu tax kéemaani yonent bi ëpp ñett ëpp fukk Maodo waroon wax jiimal alaaf ne jiimul uluf ñu la jam u killa daanu ko teg ci palaasu jabu gasra ngir mu nekk majaas moo tax Maodo ne rek fii alaaj Malik jéemul uluf ñetti junni kéemaan li haabil xalqi ñeel na ki gindi mbindeef yi mu yont yàlla Muhammad moo ak jizatan ci xarbaax yenent bi am na ñetti junni xarbaax amal quraan lu dul alquran أما بمعنى سوى يلنت بي أمنا 3000 ميراكل تا القران بوكوتي أما القران باب القران نك باب باب باخ القران نينت يون لا نيو تي خلاص نينت بغل سبارا تعظيمه والتزاز حين تذكره حب القران واصحابه له كرمي من كان صبارا إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والسدل جيم نينتل جيم الألوف لهذه الخلق معجزة أما القرآن نينتل كفى القرآن الذي يقدو به فصحاء النصر في بكم والبهد والسمم نينتل جيم الألوف لهذه الخلق معجزة أما القرآن فقالوا وحنا يوم برم خم خمي عبد الله مجروم يا نافك جني كيما نيانا يرنتبي فيه جبل القرآن كما القرآن الذي يقضي بالفتاح كما القرآن الذي يقضي Amén. to

quraanu rek lay wax quraanu la mais way wee tax Maodo ne quraanu te ni ko Maodo di waye yeneen borom xam-xam yi itam noonu lañ koy waye doo demee charte bi bi jàngale juróom-ñaari njàngin yi am ci alquran ba mu ñëwee ci imam Hamza ma nga naan wa hamzatun ma zakkaahu ma zakkaahu min mutawarrin imaman saburan lil qurani murattila hmm. alquran doy na dama guddee waaye mënoon naa tas alxuraan ni ci ñëwee alxuraan lépp a ngi ci forox caaya mm, yëpp yëpp mi ngi ci biir alxuraan yëpp loo xalaat rek cuub cuub cuub yére cuub fa tax ya bi injilin xaniis yi lépp ngi ci ingénieur ila sadasi ila sadasi shoabi mi ngi ci lépp lépp ngi ci feeraay yi mi ngi ci kaw alquran atuni zubaral hadid moo tax mu ne kafaa doy na xuraanu alquran allazi ba nga xam ne yaqdu dana mujj fusahaa u lusmi way set lammin yi fii bakk mi nekk ci lu waaw nay ñëw na damay bañ la daloon imam ba dal ma benn waaye dafa dugg ci jàkka indaale deux cent mille ne Bilal sëriñ mu ne Bilal yi am cent mille yow mi noddu di liqa gestu kii bare ne ko am cent mille ne ko am cent xool imam ne ko yaay tudd famille yaay jullee suba tisbaar takkusaan timis gee yaay jullee néew yi yaay takk sëy yow moom dama lay bàyyee yàlla imam bi na ko bul ma bàyyee yàlla jaaral ak man fi nga jaar ak gaay yi ma baye ak yam ma ni jaarul yàlla ak man fi gaay jaar ak man ma baye ak yam wa nay ñew ci la ci la su ma tolloo na ci yii moom duy dugg si di yaq jang yi wala nay ñew nak nak wala wala ngeen bu bondo ñew ndo rek yàq ci la kafal qur'an kafal qur'an alladhi yaxdu bi fusaha'ul ulus fi bakk way set làmmiñ yi fii bakk mi ñi ngi ci ci lu wal bëx di ak ngëlëmte wa simami ak tëfte ak tëfte ñi ngi tëf loo teg wa axkimat wa axkimat xereñeef na aayaatuhu aaye alxuraan yi six mille six cent soixante six verset yëpp xereñ na wa fussirat faram fàcceef na كلمات باتي القرآن حالتي بنقلب الأحلام خلي للسهم نلوي نوي به جاء القرآن نوتي كان ان احبي لا إله الا الله ففاق القرآن تلك ربي وسلم يا إله وإله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Come on. Africa, oh, Africa.